بسم الإلائفن الأدار يالله سفي بقاء به لي فيك يالله بسم الإلائفن الأدار يالله سفي بقاء به لي فيك يالله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 wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul xuqdatan min lisaani yafqahu qawli barki borom Tuubaa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateur yu Lamfal télévision noo ngi am mbégte di àndaat ak yéen ci jataay bii nga xam ne baaxoo ngeen di ko ànd ak mun dimanche ju jot bu 22h jotee mu di seen émission bi ñu duppee ëttu murit ngeen jàkkaarloo ak nun ci micro bi feggoo ak ci machine bi alxaaji Fallou Sylla nu àndandoo ak moom nag di leen nuyu nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo boobu saaxibul fadila al cheikh Mouhamadul Muntaxa ibnu cheikh Mouhamadul Bachir xalif général kullu murit di ñaan sunu boroom mu gën a dolli ak wéram te gën a dolli ak manam te gën a yokk aw fanam ba yéene jim am ak naal yi mu naalal lislaam mu àggale ko te ñu ànd kook moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di nuyu ak siyaare sëriñ Abo Baraka xalifatu cheikh Mouhamadul Fadil Mbacke al muridu saadiq di ko ñaanal yàlla fan wu gudd lool waa ànd ak wér yaram ñaanal ko mbooleem njabootu Cheikh am Cheikh gépp di teg ñaan googu nag ci loxol Cheikh Abdoul Fatah ibnu Cheikh Mouhamadul ak mbooleem njabootu sëñ Fallou gépp di tàbbi ci ëtt boo xam ne ëttub murit la waaye du yam ci murit ëttub saadix la di tàbbi ci ëtt boo xam ne boroom ku jàngat ak dundam ak histoire xam ne doomi réew mi la waaye doomi lislaam la doomi jikko la it nag waaye doomi jom la kooku di cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Mouhamadul Fadal ñu gën ko miin ci sëriñ Mouhamadou sa Dieng ñu ñaan suñu borom dooli yërmandeem ak taw feexam di siyaare jëwriñu ëtt bi di sëriñ Jiili Mbàkke Cheikh Abdul Xaadir di ko woyofal boppam te yàlla diisal ko di ko ko am ngërëmul sëriñ bi jaarale ko ci wayjuram di boroom jikko ju sell na nga koy jaar di siyaare mbooleem rakkam yi topp ci ginnaawam yépp di leen ñaanal li ñu ñaanal seeni wayjur dem mbégte nag ñëw ak yéen ci jataay bi feggoo ci ak sëriñ Modou Kandji ci sama loxol ndijoor alaaji sëriñ sa ci sama loxol càmmooñ ñu fas yéene fàttaliku dund gu barkeel googu dunduk jàmbaar jooju nga xam ne hinda zikri saalihin tansilu rahma nit yàlla yi boo fàttalikoo seeni ji seeni seeni dund mën naa wàcce yërmande yàlla lu tax muy wàcce yërmande yàlla mooy koroy seeni jikko boo tàllalee sa loxo ñaan yàlla dana la wuyu te sëñ Modou Moustapha Fall bokk na ci ñoo ñooñu kon ma bàyyi kàddu gi sëriñ bàyyi sëñ Mudu Kànji mu nuyoo ak bokk yi sofal ñu ci nuyoo bi xamal ñu ci taarix kan mooy sëñ mu Moustapha Fadilu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa mbokki eh, jullit yi ak mbokki taalibe yi siraan Lamp Fall TV ñu leen di nuyu bu baax di leen siyaare di jaarale nuyoo bi ci sëriñ Fallou Gallas Lim yi nga xam ne mooy jëwriñ ju yi nga xam ne mooy doxal jotaay bi di ñaan yàlla suñu boroom liñ fiy wax mu am njariñ te nekk loo xam ne ñëpp dinañ ci mën a jariñu ndax euh, li nga ko waxee mag ñi ñi nga xam ne ñun moom lañu am di leen waxtaanee am na njariñ lool ci réew mi am na njariñ ci askan wi am na njariñ ci àdduna bi ñu ngi nuyu euh, jiital nuyoo bi nag Cheikh Mouhamadul Mountakha comme ni nga ko waxee. ak sëñ Abo ak sëñ Abdul Xaadir yàlla na ko yàlla suñu borom dëgëral te bàyyi ko fi mbokk njaboot gépp di ñaanal it mbokk yi nga xam ne ñoo jiitu ci euh, jamono yi weesu nga xam ne at yi mi daan ànd ak ñun liggéey bi te ñaan yàlla suñu borom euh, dolli leen yermande ak suñu waajur yi jiitu kon suñ fàllu euh, bu fekkee waxtu yi rek di jéem a njëkkante moom di suñu jëwriñ ji nga xam ne mooy suñu sëriñ di suñu fàll bu sax moom it ndax daanaka maa ngi wax ne sax moom dong mënoon naa def waxtaan wi waaye xanaa dañuy topp ci am rek di déglu ko incha allah rek bi fas nañu yéene euh, wax ci rek li nga xam ne jàpp na ne dina am njëriñ kon suñu Fallu bu fekkee dégg naa sa laaj kan mooy suñ Mouhamed Moustapha Fallilu hmm. dafa mel ni boo doon tontu bu gaaw rek mën ngaa wax ne sëñ Modou daal nekk na koo xam ne boo ko doon présenter bu fekkoon ne réew yi dañoo dajaloo di présenté seen nit di présenté seen nit ñu baax ñañ am suñu Modou Moustapha Fall Sénégal gii mën naa jël moom moom boppam présenté ko foofa. Mhm. su fekkee dañ doon wut ay dëkk ñu ñu présenté suñu Modou Moustapha Fall kon waa Touba waa waa Touba dëkk Touba mën nañoo jël suñu Moustapha Fall présenté ko foofa. Mhm. kon loolu rek ci tënk mooy euh, ci bépp fànn ci bépp. Euh, loo xam ne nii lu baax la ci jikko ak ci def lu rafet ak jëf mën ngaa wax ne mooy sëñ Modou Moussa Falilou sëñ Modou nag yàlla dogal na mu am euh, comme ni ko suñ borom di jagleele ñu bari ci euh, gars yu baax yi nga xam ne mooy moo moo leen moo leen di dimbale dimbale na ko mu jaar fu fu ci ay waajur yu baax ndax ak cheikh Mouhamadul Mus Falilu Mbàkke moom cheikh Mouhamadul Xadim mooy waajuram daa mel ni foofu rek doy na boo doon présenté yem yem fa ci baax. Mhm. nga ñëwaat ne soxna bu sa jàng mooy waajuram bu jigéen soxna bu sa jàng ci ñu ko xamut mooy doomi Serigne Malick Jàng gën a siiwee ci Serigne Malick Ibrahima Yacine Oumy Jàng. su ma Yacine Oumy Jàng nag. Euh, bokk na ci mag ñi nga xam ne ñoo bokk na ci njëkk a topp ku baax ki ca Mbàkke Kajoor mm-hmm. ba ba muy wuy ji boromam ci euh, gosaas gi lépp ci liggéey suñ Tuubaa bi la nekk Sëñ Mayaasin Umi euh, xam naa loolu Sëñ Fallu naa leeral ndax Sëñ Mun mm-hmm. Musaa Fallilu mm-hmm. yàlla laa dugal sëñ Majang Xari Jeng Majang Fallu bi nga xam ne mooy waajuram moom la yàlla dogal moo njëkk yor sëñ soxna Aminata mm-hmm. bu baax ma yàlla yàlla dolli leer. Mm-hmm. bi ñu ko yoree amoon na ci ku ñuy wax sëñ Ahmadul Muxtaar Diagne. Mm-hmm. sëñ Ahmadul Muxtaar Diagne moom i moom lañ dippee sëñ Ahmadul Muxtaar alxalifatul aam. moom mooy xalifa bi nga xam ne moo fa nekk léegi yàlla ko yàlla dëgëral ko fa yàggal. moom lañ ko tuddee. sëñ Ahmadul Muxtaar Diagne moomee kon day mel ni euh, kon doomi soo sëñ Mbiya euh, doomi sëñ ba jëng Fallou jëng la yoo xam ne nii mook sëñ Mbiya si ëmmi jëng ñooy ñoo doon bokk waajur ñoo bokk waajur mm-hmm. kon day mel ni sëñ Modou Bousso Dieng mi ñuy waxtaane mm-hmm. sëñ Modou Moustapha maam la ci maam la maam la ci wet maam la mm-hmm. ci wet waajuram la bàyyi waajuram moo tax euh, yaakaar naa loolu li tax li tax mën a leeral ndax ku ne xam na ne bu ñu si fa mu yoroon njàngam di nga ko gis. Mhm. Cheikh Mouhamadou Moustapha mi mi ko mi ko suñu Fall tuddee. Mhm. mu nekk fa kon day mel ni kon këram la nekkoon. Mhm. ndax euh, ni nii ma la ko waxee. su bi Fall la nekkoon wala ku baax bu baax a baax baax nga xam ne euh, ay xese yu bari yoo xam ne xay na su fekkee émission bi du du si xaj. ndax euh, ñu baax ñi yàlla yàlla day dogal ñooy ñooy bokk ay ay ay ay ay ay naanukaay ak ay ballukaay ndax booba ñoom dañoo soriwul fi ñu nekk. ndax booba Mbàkke Kajoor ak ay dëkk yooyu yëpp sorewuñu woon. Hmm. ñu baax ne daan seetante ku baax defaraan ñëw lu bëree bëree bëri. ba ku baax ki euh, nekkee Mbàkke Kajoor ci la suñu Yaasin Umu Jëng nekk dem ci moom. Hmm. Euh, jébbalu fa. sëñ Muntaxa Jang yàlla na yàlla dëgëral mi ngi fi nee ma bi sëñ Yaasin Umu Jëng demee keroog ku baax ki kii maanaam gëm ku njëkk woon. Hmm. dafa ñëw mu ne ko euh, ma sëñ Malick wool ma foofu ku ñuy Ibrahima. nee na mu jóg di ko di di ko di ko di ko wooyi maanaam ba ma demee wax ko ko moom moo fi njëkkaat ndax ndax ndax daw ndax boobu maa ngi soog a ñëw hmm. fi ñu toogee fekk boobu boobu maa ngi xool euh, àlliwa yu rafet mbind mu baax mu rafet moo xam ne maa ngi naan waaye mbind mi ko ko ko bind yàlla ko gis hmm. ndax kii daal moom mbind mi neex na ndax moom yàlla ko mooy lool moo la bind hmm. ci ci noonu nee na moom moom mu mu su bëgg sëñ bi wooyee ba mu ñëw mu ne ko kii de moo bind alluwa ji xëy na da ko si xel. Mhm. nee loolu la njëkk def. Mhm. kii moo bind alluwa ji xëy daal leen boole. loolu yaakaar naa ne euh, boole googu mbokk yi ak ñi xam xam nañ mbooleeg maam na ak suñu euh, yaay bu yaatu yaatu loo xam ne xëy na émission bi dina dina du si xaj. Mhm. bi yàlla dogalee nag mu ganee jamono fu ci ñaari waajur yu seetlu yu baax yoo xam ne daanaka ñoom doy na foofu ci présentation. suñu borom dogal na fekk na fi ku baax ki Euh, wax na ne 1919 lay war a tollool ku baax ki dalal ko jàng ci njaareem euh, euh, yóbbu ko yebal ko fii si Touba mu ñëwee Touba booba Touba booba dëkk dëkk bi yaatoogut hmm. am na ñu fi nekk nag soxna aw bësa mii moom itamit mi ngi fi woon ak njaboot gi hmm. ak suñu fàllu waaw am ñuy wax suñu Mor Sànke suñu maam hmm. ñun ñu suñu maam la wax rakkam ñu rakkam ñu topp si moom moo jur suñu waajur moo ko jàngal alxuraan boobu fekk ba moo yor daara ji fii jàngal kilifa yu bari xam naa mën nañ cee lim ku mel ni sëñ Moustapha Massamba sëñ sëñ Baara Jenn ak kilifa yu bëri yoo xam ne xëy na lim bi du du du du mu euh, wu leer mokkal ko mokkal wu rafet bind mbind mbind mu set sama maam daana ma nett lu bëree bëri ci moom ci ba mu nekkee daara ja di wax ne ku mënoon bind la. te ku hmm. juboon la ku daan topp ku selloon la ku daan topp sàmmante ak ak ak ak ak def lu baax. Euh, ba bind kaamil bi mu njëkk bind sax maanaam bëggoon mu am lu baax sëñ Afia Ñaŋ mbokkam ma sax dafa ne foog mu bindaat beneen. Hmm. muy ñaari kaamil. Hmm. sama maam suñu Mor Sànq nee na nee na ma am na fi am na fi juróom-ñetti at bind fi ñaari kaamil. ma ànd ak moom yóbbu ko sëñ bi sant ko sant sant sant sant euh, bu mag a mag a mag. sëñ Fallou sëñ Fallou Mbacké. Mm-hmm. nee na ci sama kanam wax ko fa wax yu rëy. Mm-hmm. daa daa saa yi mosaan ñëw fii ci moom ne ko euh, euh, di ko nuyu sama maam danaan ana sa waa ji fu ne dina wax. Mm-hmm. ma ne ko ma nga wala wala ma nga nii wala am naa dina am lu baax de ndax suñu Fall gërëm na ko. loolu baax fekk loolu yàgg na ma ko wax. muy koo xam ne bu fekkee dañ koy wane mooy kan rek kon mooy koo xam ne daal gane na jamono ci. gane euh, fu fu fu sell si ñaari waajur mm-hmm. jàng na alxuraan mm-hmm. bi mu jàngee alxuraan bu mokkal suñ fàll boole ko ku ñuy suñu suñ mujj suñu suñ mujj nang mooy waajur suñ afi nang mm-hmm. jàng la ko xam-xam afi nang miy wax si jumaa ji ak suñ bu sa ilimaan ak ay mag ñu bari ñoo xam ne ba mu géeju xam-xam kon euh, moom nekk na ko xam ne daal musta génn ci euh, li nga xam ne mooy euh, li nga xam ne moom lu fekkoon ci ñu baax ñi. ak mhm. ñu ñu sell ñi. li mhm. daan def muy jàng ak jàngale ak mhm. nekk si lu baax li. ak nekk si ndigal. ba euh, Alaaji lu Mbàkke sant ko gërëm ko xam naa loolu bu ñu liggéey si biir incha allah rabbi tënk daal mooy kooku mooy Cheikh Moussa Fall mag bu ñu liggéey si biir nag dañ développé ay ay incha allah jërëjëf jërëjëf Serigne Modou Boussa Kandji Eh, day mel na xam naa ne jotaay bu fekkee ne ñaari fàll yoo seq sëñ Mourou Moussa Fallilu ñuy waxtaane sëñ Mourou Moussa Fallilu dana am solo eh, ñu ngi lay jaajëfal baax te wax ci li ñu indi ci taarixu sëriñ Mourou Moussa Fallilu kon alaaj sëriñ yow du ma ne la kan mooy sëñ Mourou Moussa Fallilu waaye daal dund nga murit saadix nettaliwuñ wuñ la ko dund nga murit saadix dégg nga ci moom ay jikko ci wàllu nit ku baax ban taxawaay la ci sëñ Mourou Moussa Fallilu amee <coughs> mbokki julli di ni seetaan ak di ñu déglu ci Lamp Fall bi ñoo ngi leen di jottali ab nuyoo di jiital ci nuyoo bi xalifatul aam di taifatil muridi sëriñ Muntaxa moom Cheikh Mahamadul Basir ayadahu llah wa nasara afisahu llah wara ñaan yàlla suñu borom mu gën ko fee yàggalte te wéral ko ba li mu yéene liggéeyal Seexul Xadim suñu borom kàttanal ko mu jëfee ko nu kawe njortam te ñu ànd ko ak moom ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp di leen nuyu ci turu sëriñ Abdul Baraka muy sëriñ Mbàkke Buso mi toog jotaayu Cheikh Mahamadul Fadal ak mbooleem njabootu sëriñ Falilou Mbacke gépp di jaarale nuyoo bi ci jëwriñam sëriñ Basiiru moom Cheikh Mahamadoul Fadal di ko teg ci loxoy ki yore kàddu kër Cheikh Mahamadoul Fadal muy sëriñ Abdoul Fatah moom Cheikh Mahamadoul Fadal waaye kenn mënut a fàttewaale ci loolu sëriñ Mourtala Mbacke moom Cheikh Mahamadoul Fadal ci mhm. digganteem ak jëmm ji nga xam ne moom la ñuy waxtaane mhm. euh, sëriñ Fallou Galassi la ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm <coughs> di nuyu sëriñ Abdoul Khadir mu nekk ci bopp kër sëriñ Modou Sa Falilou ak rakkam yëpp mhm. ak mbooleem soxna yi ak mbooleem taalibe sëriñ Modou Sa Falilou yëpp ak i bokkam di nuyu sa jëwriñ nu ñu booleel nga xam ne ci donga tarbiya yi la bokk muy sëriñ Modou Kandji di sant yàlla sunu borom bu baax bi mu nu tawféexalee nu fekkee jotaay bu mel ni bii nu ciy waxtaane jëmm ju selle noonu ju baaxee noonu muy sëriñ Modou Moustapha Mbacké moom Cheikh Mahamadoul Fadal dana doy ci moom <clears throat> ñu ne la sëriñ Modou euh, dañu ko tànnal mm-hmm. bañ ko tànnalee tànne ko ca mm-hmm. muy sëriñ Modou ndax ni ko sëñ Modou ñu ngi wax sëñ Modou Kandji waxee mu nekkoon di doom doomi Cheikh Mouhamadul Fadal. Mm-hmm. moom Cheikhul Khadim di yi Soxna bu sa jëng moom sëñ Ma Yaasin Oumy. Mm-hmm. Euh, ndam la euh, sigare la. Mm-hmm. Euh, waaye doyloowut woon rek ne juddoo naa ci ñaar ñu ñu tànn ñu meññ ma may jiwu rafet dama war a sax génne gàncax gu yaatu gu jóge ci man goo xam ne maa ko jëfal sama bopp. allahu akbar woon rek ñoo ñu ko may ñi daf leen a liggéeyal mhm. bi mooy li mu wax léegi rek ndax mokkal na alxuraan bind ñaari kaamil waaye baayam taxul mu bàyyi ko ndax baayam da cee def sag boo xam ne ci yoonu murit mhm. jàngale ci loo xam ne itam yoon yëpp mën nañ ko jànge mhm. mooy lan mu judd di sët bi njëkk sëriñ sëriñ Tuubaa njëkk am ci moom sëñ mu fallu mu tuddee ko Cheikh Mamadou Moustapha mii magam nga xam ne danaan wax naan mbooleem sëti sëriñ Tuubaa yi maa ci njëkk a tudd Cheikh Mamadou Moustapha loolu képp ndam la dëgg la sag la it waaye am njàngale la ci biir yoon wi ci biir bokk yooyu te boobu sëriñ bi nekk te boobu sëriñ Tuubaa ngi fi man ko tudde sëriñ Tuubaa man ko ku waaye mu tànn magam ju baax jooju nga xam ne fu mu tudde aw turam danaa sa baax ngir di jàngal àddina kan mooy sëriñ Modou Moustapha ak man nan laa mel ci moom ak fan laa ko toppee tax mu fab taawam boobu di seex moom du Cheikh Mamadou Moustapha lu Mbacké di doom joo xam ne moom la njëkk a tudde sëriñ Modou Moustapha sëriñ Modou Moustapha njëkk koo am ci turandoo ci sëriñ Tuubaa bu ca yemoon képp mu doy waaye mu jàngi alxuraan ba mokkal bind ñaari kaamil taxut mu doy ci moom mu ne ko nag kaay dem nag ma jox la sa turandoo nga laxas dem dem nag tërbiye wu ci jébbal ko Cheikh Mamadou Moustapha mu yóbbu ko Daaru Nahim mu fa ab diir wax na ne faa nekk lu war ñetti at mhm. ne doon faa jógewaat sëñ bi yóbbuwaat ko Taïf Cheikh Mamadou Moustapha lii sëñ bi wax léegi ne Cheikh Mamadou Moustapha day maamam di bàyyam moo tax Cheikh Mamadou Moustapha da ko daan wax bu ko yónnee ci sëriñ seex wala mboole boole ko danaa ko sëriñ Cheikh di sa mag di sa nijaay noonu la ko sëñ fan sëñ sëñ Modou Sa daan wax. Mm-hmm. <clears throat> am na bis boo xam ne dama dem ci moom ànd ak ku ñuy wax sëñ Basiiru Silla di doomi sëñ Ndindi Silla. Mm-hmm. moom sëñ Matar Mariam Silla. Mm-hmm. mu tudde ko doom ñëw ci sëñ Mutalaan daa bëgg gis sëñ Modou mu boole ko man ma yóbbu ko. keroog sëñ bi da ko ne sëñ Mbàkke soxna loo de xam naa ci moom lu ngeen ci xamul yéen. sëñ Modou loolu la wax. dal di ne dafa am bis ma jóge Taïf Cheikh Moustapha yónni ma dama demal wal ma sëñ sëñ Cheikh ne ma ñëw fekk ko neboo ci. di fekk ñu ñu rëbbali woon ko ay ci àll bi ba indil ko rëbb ma ba so soxna loo Jóob defar ko ba indi ko taajal ko sëriñ Ba sëñ sëñ Seex ne ba mu raxas ba mu summi turki bi mu yoroon wékk ba raxasu ba noppi bay bëgg a jëfandikoo rek ma ne asalaamaaleykum ne mu téye loo xam ne wa aleykum salaam lu xew ma ne ko dañ ma lay wooloo de ne mu la ne bëri jéggi ndab la allahu akbar moom sëriñ Seex daal di sol daal di <coughs> sol sol sol dàll yi ci kanamam rek ne daal di wax wuti oto ba nee na turki bi mu wékkoon ci portemonte bi dañ koo wékki dar ko si biir oto bi jox ko ko nee ko ñu dem ci Cheikh Moustapha daif ne bi mu agsee ci sëñ Moustapha tuuti lañ toog ci Cheikh Moustapha rek ne soxna loo jóg fekk ñu xam ndam la waaw ne dër ko dikk taaj ko ci kanam Cheikh Moustapha ne sëñ Modou Moustapha siggi xool ko daal ko ne xanaa lii sa waa ji nga ko defaraloon ne mu ne ko déedéet yow laa ko defaraloon mu ne ko déedéet xanaa sa waa ji nga ko defaraloon ne ba mu ñetti yoon mu la ilaha illallah nga xam ne dund ci Cheikh Mouhamadou Moustapha di ko tërbiyewu nag ci li yoon wi xam muy tërbiye ci alxuraan ndax Serigne Touba dafa yóbbu alxuraan foo xam ne kenn mësu ko faa yóbbu daa fekkoon alxuraan ñu ñu suufeel ko mm-hmm. wàcce ko lool te te te te doyadal ko mm-hmm. ndax dafa nekkoon waxi yàlla suñu borom ni sëñ Tuubaa di waxee ne génn allif ci alxuraan rek moo gën rasulullahi salaa salaam ndax rasulullahi bindeef la te alxuraan sifatullahi la melaw suñu borom la allahu akbar tax te alxuraan sëñ bi yëkkati ko wanewaat ko wax li tax alxuraan ñëwoon ci jamono te bokkut ak li ñu koy defal mm-hmm. te dañ ko doon wute koomu àddina rek tax sëriñ Tuubaa raxas loolu ci alxuraan ni mu ko raxasee itam mooy wóorul kenn di la yedd wóorul kenn di la wax lu mu la war a wax wala mu di la ko def waaye daa warmaal alxuraan teral ko mm-hmm. ba ku bind kaamil alxuraan sa xel da kenn ku dul nga gërëm sëñ Tuubaa waaye soo ko yitee sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dalay teg ci wetam loo indi ci teraangay àddina mu ne la joxal ma ko borom alxuraan bi ba jox la ci loo xam ne bët musu koo gis nopp musu koo dégg ci teraanga te sëñ Tuubaa defal la ko hmm. moo tax la sëñ Musaa Ka doon wax naan saalum di bind di ko yot mbaakol di bind di ko yot gànnaar di bind di ko yot muy jënd ay mool di ca rax hmm. soo féetewoo di ko bindal mu féetewoo di la dundal boo koy bayal di ko bindal mu sàkk ñuy bay di la jox defal la nag canuk jigéen labat ko yot la doo ko miin tegaat bu say mbir nga ne tóon mbaa nga tërbiya yëpp ci alxuraan lañ ko doon def mhm. sëriñ Falilu ci alxuraan la tërbiya seexul xadim ndax gisul woon ak bëggam gum gu ràññi ko ci moom gum mën a leerlu gudul alxuraan mhm. te yàgg naa wax sëñ Tuubaa ne ko dama la bëgg a liggéeyam waaye gisul mu am lenn lu mu soxla woo lu may alxuraan mhm. taaral bi mu taaral alxuraan woo mu gomatu bi mu gomatu ci alxuraan teg te alxuraan lu mu jógee yëkkati def ci alxuraan mu dem mokkal alxuraan di bind di yot sëriñ Tuubaa allahu akbar sëriñ Jiili Mbàkke moom Cheikh Mamadou Fadal yal na yàlla yokk yërmande mu jéggal waxoon na ma ne ma sëñ Tuubaa wax sëñ Fallu di wax na ma ca Tuubaa bogo ne ma bindal naa sama maam ñeent fukki kaamil ci sama loxol bopp lii daal ma waaye yéen na xam naa seen jot leen ko may waaye lu mu gàtt gàtt faw nga bindal ma ñeent alxuraan jooju ñu doon tërbiyee woon ba am ngërëmu Seexul Xadiim sëñ Fallu liggéey ci ba ba yàlla suñu borom di ko wax ne ko sëñ Tuubaa ne ko sa borom nee na bindal ko alxuraan yaakaar na loolu euh, tërbiyee fi la yem dëgg la ndax kuy tërbiyee ba àgg ci yàlla la nga def mu dem ba neex mbindeef yi ba jàll mbindeef yi jëm ci yàlla ma ko moomoon hmm. ba mu di ko sàkku ci yow hmm. loola fi la hmm. la sëriñ Modou Sa Fallu xamoon nag tax muy tarbiya wu ma Modou Moustapha ci ndigalu sëriñ Falilou muy bind alxuraan di ko jox sëñ wax ci làmmiñam ne bindal naa sëriñ Modou Moustapha Mbacké itam ñaari kaamil juróom kaamil juróom-ñetti kaamil la doon Allahu akbar nee na bi ma ko bindalee am juróom-ñetti kaamil nee na juróom-ñetteelu kaamil bi sax kiimtaan la ca def ndax kiimtaan la mooy weeru koor bi daa teeru mu ne mu woo ma ñëw mu ne ma dama bëgg nga bindal ma kaamil alxuraan bu dul génn weer bi mm-hmm. nee na may bind ba ci ñaar fukki junni ak juróom-ñeent mu euh, kaamil bi des aw des te tey la séntu bu njëkk mm-hmm. nee ma ma jaayanteeg Seexul Xadim ne daal koy wax ne bu sama liggéey bi daal soo ma ko nangulee da nga may defal weer bi mu kaamil mat fan weer hmm. te bañ a feeñ ñaar fukk ak juróom-ñeent yi ndax kaamil bi mat kon hmm. waaw ne sama borom defal ma loola ba weer wa kaamil te bés ba bët ma daal di àggale kaamil ba kaamil ba daal di àgg weer wi feeñ nee na kaamil boobu ma fakku di ko Cheikh Amadou Safa mooy sama kaamil mujj ci moom ne ba ma ko ëndee jaar ko ci càmmoñam mu ne ma alkitab bil ne daal ne ma alxuraan ci ndeyjoor lañ koy jaar ma daal jaar ci ndeyjooram ne sukk jox ko kaamil bi mu xool ko daal ne ma jërëjëf jërëjëf jërëjëf ba mu ñetti yoon ne ma ne ko jooju jox mm-hmm. ko waxee sama làmmiñ nga mm-hmm. ci bataaxel jox ko ko ne ko joxal ma ko sëñ Fall mm-hmm. sëñ bi ma dun see bi mu egsee ci sëñ Fallu jox ko leetar bi dana ma sa turandoo de li mu wax mooy daf ne la taxoon ma di la ko jox ngir mu def ko ci yow dane def na ko ci ah, ab secret de la ko ma ne ko déedéet ne mu nekk décret de waxuloo ko ma ne ko déedéet mu ne ma kaay ma ñëw ma woon ma ko ne ma xoolal turu Moudou Moustapha wi daf bind aw rëdd bërale ko xam nga lii lu doona ah, ma ne ko déedéet Mbàkke mu ne ma mooy sange kaaraange la mm-hmm. waaye jox ma xalima ne ma jox ko xalima mu daal di bindaat beneen beneen rëdd moom sëñ sëñ sëñ sëñ ne ca ca gannaaw rëdd goowa hmm. daal ne dolliwaat saa saa nge soosee loolu moo tax ma ne leen du ma tiit du ma ragal hmm. loolu tax ma leen du ma tiit du ma ragal hmm. ba ko ñaareel ba ko ba ñaareel taxawaayam yooyee mu daal di eh, laxasaayu nag léegi fas yéene am ngërëmul sëriñ Fallu lu mu liggéey rek jox sëriñ Fallu soxlawul daray boppam moom ci boppam wax na ne Daaru Manaan gi na sa na faa fekk sëñ Fallu guddi goo xam ne ba mu fay dem sëñ bi daa bàyyi ñaari ñaari sërif ci këram gii ci Touba war leen a yeewi bu ñu xëyee ci un million ci ñoom ñaar kenn ku ne lam la dig nee na ma ñëw fekk ko foofu ci guddi gi war sama oto nee na bay sëriñ Bousso mii nekkoon gaar bu ndaw su suñu chauffeur moo ma ko nettali mhm. ne ma keroog maa fa nekkoon ak moom mhm. ak nit mhm. ne mu wax ñu ci biir jotaay ba rek dañu wax tey am na lu xew xonq na fi de ndax ñaari sërif dañoo nekk ci kër ga de yoo xam ne suba laa leen waxoon te euh, war naa leen jox kii téeméer ak ñeent fukk kii juróom-ñett fukk hmm. te suba laa leen waxoon te dara nekk gu fi te mënu mënu suta tëdd te te fajuwut bay sëriñ nee ba mu waxee loola mag ñi dañuy jóg par benn di dem ba jeex ne ma ne ah lii sëñ bi wax daal bu fekkee noonu la li ci xel la ko wax hmm. daal ne bu fekkee noonu rek la demee bay boo ñu tëdd te xam ne tey fii la hmm. gi bay sëriñ nee na ma tëdd ci wetam ba ba mel mu daal may fëgg ci wantaay gi mu yoroon ne dama ku ku ne ma sëriñ ma ko mbàkk mu da nelaw ne ma ne ko dee daa jóg toog ne mu ne mu ne mu ne ko sëñ Modou sama waa sëriñ wax ko li fi bàyyi waaw ba sëriñ nee maa ko nettali sëñ Modou ne ko ah fii kat neen li ko fi bàyyi mooy dafa bàyyi ñaari sërif yoo xam ne kii da ko war a jox suba téeméer ak ñeent fukk kii mu war koo jox juróom-ñett fukk te dara nekk ko fi te nee mun ne sëñ sëñ sëñ sëñ mu daal di wax sëñ Fall ne ko man de li ma ci ñaan rek mooy bu fekkee ne ma ne su ma nekk fii ko Mbàkke mu ne ko bët fekkoon nga fi bët mu xonq coy coy coy nga weexal ko mu ne am ne ko waaye sa bët duutu xonq nee na loolu moo tax lu lu ma nit ma sa wax ci àddina ma mën koo dogal ndax li ma koy dogal dana ma wóor ne su ma ko dogalee te amu ko sama bët dana xonq te sëñ dee woon te xam naa ne sama bët du xonq macha allah kon kooku makaarimul axlaaq la yoroon dëgg la jaajëf xam na ñi ko jur xam na yoon wi ñu ko jaarale mm-hmm. nangu na loola teg na ca tànkam mm-hmm. te sëñ daf ne yaa taaliba riddal anil xalaaxi laasim bihi makaarimul axlaaq mm-hmm. wa bil makaarimi takunu taira karam yi taxloo dawaaman xaayira foofu la sëñ Modou Moussa Fall lu nekkoon macha allah macha allah eh, jërëjëf jërëjëf li ma doon la wax ne jinne ju ndaw moom bu fekkee jinne ju mag ci Dakar jinne ju mag di ndinkeebaa lañ koy wooye di ndinkeebaa euh, macha allah li nga ñu indil ci sëñ Mourou Moustapha Falilou amaat na solo ndax mbir boo ko gisee boo fekkee mujj ga sëñ Abdou Lahad da daan wax ne ab dëkk lu yokk ca dëkk ba ka fekke woon gent baa la ko mën a wax waaye ka ñëw ca xumbiinu dëkk ba doo xam lu weral mm. bari na ñoo xam ne dañoo fekk aajo yi sëñ Mourou Moustapha Falilou faju ba noppi muy faje aaje mm. ca lañ xamee sëñ Mourou Moustapha Falilou mm. fal Fallou Bousso ñëwal nañu ci ni sëñ Moudou Moustapha Falilou tërbiya woo moom nag naka laa daan daan tërbiya yow mi jaar ci daaraam. jërëjëf jërëjëf sëñ Fallou Bousso macha allah ci intervention bu am solo boobu moom mooy loo xam ne ma waxoon daanaka mën nañoo mën nañoo yem ci moom rek. Mhm. waaye dama bala maa dugg si li nga wax da nga ciy dégg ci li mu wax lu bëree bëree bëri. Mhm. bokk na si li nga ciy dégg rek mooy ne yoonu murit pas-pas pas-pas moom moo ciy jëriñee. dëgg la dëgg la. ndax euh, euh, moo ko lal te pas-pas mooy mooy pas moo moo lal sax ab jullit ab dëgg. Mhm. xam nga ne xare yi daan am ci lislaam yëpp pas-pas dëgg dëgg dëgg la sa mhm. tax ñu mën a ñu mën a ñu mën a. jël pas-pas moo lay dugal ci lislaam waaw mu ngoog moo lay am loo fas sa diggante ak sa borom. mu ngoog mhm. kon loolu li mu wax ne damaa wóor ne sëñ Fall lu mu wax du dañ. moo tax lu mu wax rek dinaa xam dina am. dëgg la pas-pas dëgg la. dëgg la ndax lu mu lu mu daan wax rek daan wax ne sëñ Fall moo ne woon. Mm-hmm. sama bët du xonk mukk mm-hmm. comme ni mu ko waxee. Mm-hmm. loolu nag pas-pas boobu man moo ma si moo ma si moo si impression. dëgg ko waxee sëñ Fallou sëñ Modou ni nga ko ni ko waxee rek. tarbiyee moom weesuwul di jàngal nit mu di ko teg ci yoonu yàlla di ko euh, tàggat ci mu not bakkanam ba fu mu dem dina mën a xam ne suñu borom si boppam. àddina fii àddina ji andiwuñu fi ngir am noflaay wala ab bànneex wala ab coono. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu nag kon du mën a neex. Mm-hmm. tarbiya moom foo ko déggee. ndax euh, sëñ Fallou xuusut ci lu biir ci xuusut ci tarbiya ak sëñ Modou Ka. waaye daanaa dégg mu nett lu bari loo xam ne boo ko daan nett li sax mag ñi daan toog si moom. ñu kenn du waxati. boobu léeg-léeg bu daan waxtaan day wax lu metti yoo xam ne. day day bëgg nit ñi jariñu ci xam ne moom lii yàlla dogal. mu am nekk mhm. du li nga ko waxee léegi du du jëkk jékki sañ-sañ balaa am sànja am ak nattu. ak tumuraanke atte it ba fattu. jeex na loolu moo tax mhm. léeg-léeg mu daan nettali boppam. <laughs> Mhm. jubluwu si woon sax nettali boppam fu ñu jaar waaye day da bëgg nit ñi xam ne. mbir mi euh, bu la mën a ndox ndox si wala daanaka wax na war war. dëgg la. kon euh, tërbiya euh, la daan def ci mag ci donge yi ñun ci comme ni nga ko sëñ Fallou waxee jaaral lañu si jàng jàng xam-xam jàng euh, diine di liggéey ngir ñaq ngir bu ëllëgee nga mën a euh, liggéey loo xam ne dina lew mhm. dina sell ndax jullit lépp lu muy liggéey mhm. su fekkee tarbiyee ku jaar si tarbiyee li muy utee mhm. ak ku jaar si tarbiyee mooy lépp lu muy lu muy lu muy liggéey te bëgg mu lew sell ndax doomu ab jullit buy buy liggéey daa war a liggéey lu sell loo xam ko bu ko lekkee. Hmm. dina si mën a hmm. su fekkee da ngaa lekkul lewut. Hmm. xam nga xam nga kon. ay tayal loo ay cër ci demee ci euh, borom xam-xam yi nga xam ne ay ay ay fuqa ay ay ay sufiyanke ñoom xa lekk lekk loo xam ne nii lewut jaral sax ñu ñu looju ba ba wàccu. dëgg la am mag ñu ko daan def ñoo xam ne bu ñu xamee lu ñu lekk sax loo xam ne lëru leen sax. dafa dafa dafa dafa lew wala sell dañuy looju ngir wàccu loolu bu mu jàll. loolu lépp ci tërbiye yi def goo xam ne ak it di tërbiyee ba bëgg bu ëllëgee nga nekk koo xam ne di nga mën a demal sa bopp te sa euh, am amu bopp ak sa man mën a bopp boo xam ne di nga mën a dem te doo sukkandiku ci ci ci keneen koo xam ne dina la mën a jaarale feneen ndax comme ni ko olof yi waxee bu fekkente ne nii nit ki dalaa dalaa da ni ñu koy waxee ku la ëmmal sa sànqal yéen ëmmal sa kees loolu li may wax mooy moom mujj gi dafa yéem ñu bëri ci tarbiya gi ngay wax nii ndax ñun ñi ñëpp ak ñi nga xam ne ñooy samay euh, mbokk di samay mag ak samay euh, mbokk yi nga xam ñoo fa nekkoon. Hmm. lu yéemale leen def suñu fàllu dafa mujj daal di xam ne liggéey di ñàkk ñàkkal sa bopp mun a ñàkk. Hmm. mu daal di fexe ba ñi fi nekkoon ñëpp ñëpp kenn ku ne. Hmm. mu fekk nga am métier moo mën métier moo mën. mu jàngale mu jàngaloo leen métier. man métier laa bokk. man fii jàpp naa ne. maanaam jëmmi li ñuy wax bâtiment xam naa loolu di ma ko baal ci. publicité gi. waaye kenn ndax ma ko ci àdduna. Mm-hmm. te loolu moom moo ma ko jàngaloo moom moo woo ne ma lii ñu def Cheikh Koumba boo ko defee dina baax. kon te ci biir daara ji nga ko jàng ci daara ji déet si dañoo xam nga moom mujj gi lépp lu muy liggéeylu. Mm-hmm. dafa am koo xam ne moo koy liggéeyal. ndax euh, comme li li ma moytu rek di publicité. Mm-hmm. boo xam ne moo koy liggéeyal. ñi nga xam ñoo nekkoon daara ji boole leen moom ne leen kenn ku ne na fexee li ñuy def mu man ko man mii ñoom nekk nañ ci lu yàgg moo wóor mbir mi ne ma daa bëggoon boobu suñ sëñ Abdou Latif mbakke hmm. yal na ko yàlla loolu ba ci aas bi ci saam lan la liggéeyal jàkk ja xam nga jàkke ja sëñ Fallou Mbacke moo ko tabaxoon moo ko sàkkatoon ci loxoom. Hmm. sëñ moo doon ko yeesal. Hmm. sëñ moo doon ko yeesal. di ko tabaxaat mu daan ne boo demee la ñuy fekk nga fex koo man nga xam ne kenn koy dafa fexe daal ci gàttal. boo fi jógee. di nga mën a yor sa bopp. ba doo mën a dem di. dugg foo xam ne la mu defoon ci yow du dañ. bëggoon na maa xam ci côté boobu sëñ Modou ci jamono ji ngay nekk ci daara ji ñaata àll la toj ndax njàmbarum sëñ Modou it ci ay tool das koy faral di wax. dëgg la xam nga loolu lu am solo la ndax sancub dëkk ni ko waxee dafa nekk loo xam ne ci boo ko xool ci xam-xam euh, ci psychologie sociologie dañ koy dañ ko dañ koo am fu ñu teg ndax sancub dëkk da fexe ba aw yoon dem fa. Mm-hmm. danga nga fexe ba ndox dem fa. Mhm. da nga fexe ba ay nit dëkk fa. Mhm. di bay di mhm. liggéey. ko kon yaa ngi fexe ba ñu ñu am duñu am jot. te li ëpp ci fi nii suñu fàllu ci àddina bi li koy li koy li koy xaw a jo euh, jooyante jubal ko feneen. bokk na si nit ñi am jot. gis nga nit ñi bu fekkente ni dañoo dañoo nangoo liggéey. di nekk ci euh, maanaam yitte waxtu bu nekk ba sama yàlla. maanaam néew ma maanaam aw ay lu bëri waaye du am waaye lu bëri ndax ko am jot hmm. doo doo tax def leneen dëgg la loolu nag moo tax ba mu sanc dëkk yu bëri bokk na ci saam yebal hmm. moom la njëkk a sanc hmm. ba saam ko sancee li yéeme am na benn mag moo xam bi may def ay gëstu nee na ma man koy sanc ñi ñi fi njëkk nekk laa bokk mu daan def ngir xam nga sanc dafa metti sanc moom dafa metti mu téye ñu fi dëkk ñu fi nekk danaan sonn lool ba amul moom lu mu bay ndax ni ko suñu fàllu waxee danaan bay di jox sëñ bi. muy liggéey. bu mu noppee lépp mu jox ko waaye moom daan fexe ba moom soo mu am lu mu lu mu bay moom. waaye nee na yéen dëkk bi nekkoon si sanc bi ñun ñëpp mu ñu daan jox aw jiw te ba ñu koy li mooy du ñu wax ne du ñu wax ne da leen ko da leen ko may. Hmm. danaan leen dama leen ko lebal ñu bind ko xam nga suñu boobu dafa am njàngal la foofu dëgg la da ngay bind nga xam yow da ngay tiit yaakaar ne boo ko fay nga am jafe-jafe ak moom hmm. waaye nee na bés bu yàlla dogalee boo ba yëf yooyu sotti ba mu jeex. boo leen ko mayoon. d'accord di ñu góorgóorlu ndax nee na bu leen ko mayee dañ dañ koy jaay maa ko rënd. maa mm-hmm. ñu maa duñ ko maa duñ ko maa duñ ko xoolal xoolal xoolal lu am. Mm-hmm. loolu bokk na si li téye dëkk ba ba mu sancee dëkk ba mag ñu bëri nekk nañ fa ak moom. Mm-hmm. nee na loolu daan def ak ñoom di leen dimbale ci seen dund di leen dimbale ci seen uh, seen jiw di leen toppaloo si lépp. te loolu développement développement euh, développement euh, am réew. bokk na ci nga sanc dëkk mm-hmm. li ma la wax rek ndax ay yoon ak lépp li dafay aju ak ndox dama fa jógee mm-hmm. sanc na fi ñoo xaayra xaayra gi mm-hmm. fi de Touba xaayra ci la bokk léegi waaye nag xaayra nag sori woon ay tool la woon ay tool yoo xam ne ah woon daal sëñ bi sanc na fa yàgg na fa lool ginnaaw bi mu sanc Touba Aliya moom it lépp rek ngir di liggéey loo xam ne fa lay génne la fay génne lépp lépp lépp am na koo xam ne nee na ma nekkoon na si daara njëkkee moom it suñu daan bay nee na am na bis boo xam ne nii lu xormu lu xormu bu ñëwee suñu fàllu toog di joxe addi yi te ñëw nee na joxe suñ mor sëñ bi joxe addi yi yëpp ba noppi ndax moom daan bay day ñëw indi machine yaag fas yaag lépp joxe ko bu bayee ba noppi lépp lay joxe toog maanaam gerte gaag la mu am lépp la jox ak machine yaag dongee benn bis nag den suñu fàllu dé dé dongee moom yóbbu leen ndax amu leen dundale amu leen dundale dongee moom doon téye nag moom suñu lépp nit ñi lu lu nee na keroog ñun ñoo ànd ak yëpp moom waxtu nekk da koy. joxaat sëñ bi ngir lépp loolu la la la la nga ciy gis mooy yan bi nga xam ne moom la euh, suñu borom yenoon sëñ suñu fallu muy liggéeyal sëñ Tuubaa ci jumaam ji. yaakaar naa suñu fallu dina si ñëw ci li waral bis bi. Mm. ñuy séentu. loola la doon jàppale xam nga. Euh, nit ku ne. lépp lu ñuy lu ñuy def. ci ak ak ak ak jëf ci lu baax loo xam ne dañuy bëgg mu avancé. nañ ca mën rek man man man man nañ caa war a jàpp. dëgg la nag dafa jàppoon ci liggéeyam suñ suñ fan. jàpp bu wér-wér boo xam ne. ci taxawu ak ci bëgg li suñ tubaa bëggoon ci jumaam ji mu sotti ci suñu fan mag. macha allah. mu nekkoon ci maanaam loo xam ne léppam da ko cee da ko da ko jaroon moom. Mhm. moo tax mu sañc Touba Alié. moo tax mu sañc Touba Alié. dafa bàyyi it def ni daan def. Mhm. Bal. naylul maraam ak ay euh, euh, euh, nasuru fépp rek maanaam toj toj ay àll yoo xam ne mhm. maanaam waxuma dama loolu boo jëlee boo boo jëlee sax liggéeyal suñu Touba geeg yëpp mais bi développement Sénégal. Touba Alié la booba sori na xanaa. sori na xam nga Touba Alié mi ngi ci Saloum. ah. cent cent cent trente kilomètres. cent trente kilomètres diggam ak Touba ci jamono jëm koy sañ. jamono jëm koy sañ <laughs> waaw. loolu mooy li ma la waxoon ne rek métti woon na méttangoon na waaye nag moom noonu lay noonu lay demee te liggéeyal sëñ Touba. Mm. te liggéey liggéeyal suñu borom. Mm. jaaree ko ci liggéeyal suñu tubaab bi nga xam ne moom moom faw mu am mm-hmm. faw mu am xam nga suñu tubaab lu mu wax rek dina am faw mu am la léegi nag mu amit ci moo lépp mu daan def rek dañ am sottee ci suñu suñu Modou Moustapha macha allah macha allah kon suñu Fallou euh, loolu euh, bu ñu wax fi ba suba dëgg la dëgg yi mu def mm-hmm. du sotti waaye ñu euh, yemaat foofu ba ci kanam incha allah macha allah macha allah sëñ Modou Kandji leeraat na nañ ñi ci taxawaayu sëñ Modou Moustapha Falilou ginnaaw sëñ Fallou Bousso junj na moom ni ko sëñ Modou Moustapha tërbiya nga ñëwaat ci yéen ci ni mu leen doon tarbiya eh, boo xoolee ci wàllu développement rural da ngay wax ne kenn du ci man sëñ Mourou Moussa Falilou ndax kenn du ko ci man mooy gor ay àll dafoo ko ay tool nga def ko ay dëkk mbooloo dëkk fa ba bisub tey jii ñu dafa bay dëkk yim sañcoon amul benn dëkk bu gent dëkk yëpp ba fii ñu toll ñi ngay contribuer ci développement rural bu Sénégal kon sëñ Mourou Moussa Falilou ci wàllu développement rural investir na ci lu baree bare bari sëñ Modou Moustapha Falilou sëñ Modou Moustapha Sy mm. mu sëñ Moustapha Sy mu sëñ Malick Bassine ñu gën ko mën sëñ Modou si mm. sëñ Modou Mbacke si dafa may nettali benn bis mm. stratégie sëñ Modou nit day am njariñ ndax nit njariñ lañ koy doyee waaw sëñ Modou dangay gis ne la gone yu ndaw yi jóg war nañoo jànge ci ku mel ne sëñ Modou bu sa jàng mooy lan sàkku sa ngërëmul way jur mhm. xale yi bari na lu leen gàllankoor dañoo yàkkamti àdduna mhm. waaye lañuy ñuy wuti ci àdduna ma ngi seen bàyyi waaw ma nga la ñuy wuti mhm. dañ koo dañ koo séen waaye nekku fa ñu ngi ci seen bàyyi la ne bu ñu dëppee dellusiwaat seen bàyyi rek lañ bëgg lépp danañ ko am loolu nag dañoo yàkkamti xaaruñu ko sëñ laa dafa waxoon ne borom benn loxo day fexe boroom mbooloo day bay li yàq adduna bi nag borom mbooloo yëpp dañoo dem ci business bi ànd ak borom benn loxo yi business yorutum réew liggéey moo yor am réew waaw liggéey moo yor am réew mag ñi dañoo tojoon ay alal eh, sëñ Mour Mbacke si li ma li noonu bi muy gor Touba Aliya sëñ Mour dafaa dem lañ ko fa may ci suuf bariwut préfet ba nga fa ak euh, président communauté rurale ba mu xam ne lii àll bi moom daanaka dañ koy jaay rek mayewuñ ko may gi aw la fekk sëñ Mour doo ngi yor 504 bu bees peq 504 baas moom la fa indaale nee na ba mu ko yëkkati rek da koo da koo daal di jox borom dëkk ba may ko ko waaye nee ba mu desiwaatee la mu bëggoon ci àll bi lépp lañ ko daggal koo xam ne yaakaar nga ne fasu mbaam sareetu mbaam bu baax mënoo ko am mu ñëw may la ab 505 bu bees bex du la waxaat dara li nga bëggoon ci tool yi lépp danga koy jox mag ñi li ñu wax naan loxoy saalum day day weesaloo moom lañ daan def kon yaakaar naa ne eh, bu ñu ñëwaatee ci tedd ngay jikkoy sëñ Mourou Moustapha li rek mooy yoon yu mu jaaroon liggéeyal na sëñ Fallu nag ci jumaay Tuubaa ji ba am ci liggéey tur wu rëy rëy boo xam ne àdduna mënatu ko fay alaaj sëriñ jërëjëf sëñ Fallu Galassi la jëf sëriñ Modou Kandji euh, sëñ Modou ni mu tërbiyaa sëriñ Fall ni mu tërbiyaa sëriñ Fallilu noonu la tërbiyaa ñi ñi mu àndaloon mm-hmm. parce que li ko waral mooy euh, Touba Aliou googu bañ fa nekkee mm-hmm. mës na faa ñëw yoon woo xam ne dafa ñëw jamono joo xam ne dafa tooy xëpp te euh, day day bare bu ban. Ah, su nawet jotee day bëlus. Mm-hmm. mu ñëw fa oto boo xam ne jàpp nañ ne wërta mën a ñëw foofu ndax euh, waxtu woowu. Mm-hmm. bi ñun lenn ci ñun ndongo yi dañoo nuyoo di ko masawu coono bi. Mm-hmm. ne ko Mbàkke ñu ngi lay jégglu coono yi nga sonn bu ñëw mën mu ne li li ma tax a ñëw mooy su ngeen ma gisee yokk su ma leen gisee ngeen yokku moom te mu leen a ñëw moom ma leen gisee yokku su ngeen ma gisee yokku su ma leen gisee ngeen yokku mm. te mu leen ñëw moo ma fi indi nga xam ne léegi waxuma la coono yi mu amoon a yooyu yëpp waaye yow ci sa bopp dafa laa dolli waat dolli koo xam ne maanaam wan la ne la fi nga nekk mën fi nekkal te nangu naa ne nga fi neel te dinaa la man mm-hmm. nga xam ne loola dolli woon na ca ba daara yi niñ tasaaroo woon ci suufu Touba Aliya mm-hmm. nga xam ne gone yu ndaw yi la ñuy yónni ñuy jëli reer di indi ak bukki yeeg jamono yooyu rabi àll yi nekk foofu nga xam ne guddi dañ daan ñëw ba ci teen bi di yëngu nga di leen dégg buñ ko tawatee sëñ Modou dañu ragal rek waaye ku ci dox guddi ci yéen bu taf lee ci wetam ndeyjooram man la taf lee nga xam ne kaaraange li daf ko responsabilité yi kaaraange yi daf ko doon jël ba mat sëkk te boobu ëpp na benn daara ay daara ay daara ay daara yu jeex ay jëwriñ lañu ba ca nasuru lépp ay daara la te dañ leen di yónni ci dëkk bu mag bi muy Touba Aliou ci boppam nga xam fi la kër gi nekk ñi di fi jël seereer yi ndax booba yenn daara yi amaguñ ay soxna yu leen di toggal ay reer dañoo joxe woon njël yi ci biir da Touba Aliou ñi di ko togg dong yi di ko yanu si di ko yóbbu nga xam ne daara ju nekk ni mu ko organisé woon mooy ñeenti mag lay am ak ñetti gone muy juróom ñaari nit daara ju nekk ñoo moo fa nekk mas na am benn bi sodi sodiwaay ñëw fa di di ko seet di seet si tool yi mm-hmm. bi ñu agsee ci moom mu wax leen kilométrage yi yi yi daara yi di bay hmm. mooy daara ju nekk juróom-ñaari nitam yooyu danañ may danañ bay kilomètre gerte ak 500 mètres dugub. Hmm. kilomètre gerte. gerte ak 500 mètres dugub daara ju ne. léegi bi bi sa doy bi ñëwee nag loolu jaaxal ko mu ne suñ Modou man li ma jaaxal mooy daara bi dafa nit ñi dañoo bëriwul juróom-ñaari ñetti gone laa fekk ak ñeenti mag. Hmm. nga ne danañ bay kilomètre gerte ak 500 mètres dugub laa fekk loolu ñu koy bay xanaa ñoom du ay nit. suñ Modou nag dee ñu ay nit ay donga lañu <laughs> <laughs> donga du nit waaw ah. duñu ay nit ay donga lañu wax na dëgg waaw nga xam ne noonu mu doon def nit ñi ak di ko def daara ji dem na ba nag yim joxoon daara yi ñu di ci liggéey sax nag yi daanañ loof ñu yeew leen ca mbooy ga ngir yërëm leen teel leen a tekki 10 heures wala nangam 10 heures demi nga yeew say nag yor sab gopp ànd ak njaboot gi nga war a àndal ci tool bi ngeen di defar sëñ Modou dox ñëw wàcc jël tànkam dugg tool yi di wër daara yi bu fekk la nga yor sab gopp say gone yor sa seeni gopp ñu topp ci yow ngeen ngeen di bay ñu ne ko am na yi kat fi nekk nii dañoo xaw a loof ñu yëral leen ci coono bi ña ngi ne ñu yeew coono mu déet ni ngeen def seen bopp def leen nay def leen leen nay def nay teg ko allahu ngeen def seen bopp def leen nay ah, <laughs> waaw xam na njëriñ li xam na njëriñ li waaw nga xam <laughs> nga xam ne nag wi nag wi day tërbiyewu <laughs> waaw nga xam loolu lépp da ciy jàngale yoonu liggéey ak ak pas-pasu liggéey bi mu am am na am na yoon woo xam ne itam dafa ñëw fekk comme nii sëñ Modou Kane di wax danaan def bu nooree mu boyal donga yi kenn ku ne lu la ci sam xel may na la nga dem defi ko. waaye su nawet jotee nag mm-hmm. nañ daal def euh, communiqué foo ay mënoon nekk nag naa bàyyi la nga nekkoon lépp te ñëw dem ci daara ja mm-hmm. waaye loolu nag bi mu koy def mm-hmm. ba gis ne am na ci dongo yi ñu mel ni sëñ Bousso tàmbali nañoo gis koomu addina ba tàmbali nañoo bàyyi xel koomu addina mi ba defee ne war nañoo bàyyi li leen sëñ bi doon def loo te dem ca lee sëñ bi njàmbat yooyu bi ko sëñ bi yéegee dafa da am na benn kaset boo xam ne sax dong yee ko defoon wax ci ay wax. Mm-hmm. waaye dafa ñëw ba Touba Aliya. Mm-hmm. mu génne piliyaanam ci ëtt bi teg. génne rajo magnétophone teg ci kaw tablier bi. génne cassette bi dugal ci tablier bi wax daam njaay général bi nekkoon nag dañ ma wool dong yëpp lu gone ndaw ndaw na ñëw ñëpp ne tirim ci ëtt bi mu taal magnétophone bi. seet te te te. déglu gaa yëpp ñu wax seen i wax ci biir magnétophone bi ba mu jax tàkk mu ne ko karaj daal yéen yéen ko wax de yéen ko wax de gaa sëpp sëgg mu ne dama bëgg waxtaan ak yéen li ma leen bëgg xam daal mooy da ngeen wax ni da ngeen gis léegi nit ñi nekk ci daara ba xëy wàcc do do soo soo demee fa fa nga bàyyi ko woon ña nga fa bàyyi woon ñoo lay ñoo lay tane ñoo lay dimbale ma ma di leen leeralal nag liggéey bi wàcc ak wàcc dañoo niroo waaye bokkuñu waaye waaye waaye da ngeen xam ne àndaar bi suñu tuwaa yoroon doon ci tibbal ñooñee mu ndajeeloon de àndaar joojee mi ngi fi jugu fi ba léegi mi ngi fi. def la ñooñee doon def de mooy li jafe waaye ku def la ñooñee doon def ñu defal lañ defal ñooñee. daan daan daan léegi nag ku koo xam ne mas mas nga fee nekk nekkul fi mooy ni nga faral nekk dama daan am nu ma la nu ma daan jëflante ak yow waaye loolu bàyyi naa ko. bis ni bis ni tey li ma ne xamal mooy ku fi nekk te nekk fi noo waxee waru ko fee nekkee da nga nekk ba yàgg rek nga nga nga jóge fi waaye du du du du ma def loola. waaw dan daan ne daan ne léegi itam euh, li euh, képp koo xam ne bàyyeete nga fi lii ma la defloo fab sa bët teg ko ci poñitum àdduna mii ba tax nga nga bàyyi lii ma la doon defloo di dàq loolee danaa ko dàq ba doo ko jot te soo ko ba déglu si da nga fekk lii raw la. waaw nga xam ne pas-pas bi mu woon ak nit ñi nga xam ne fi fi mu leen teg ak ni ni muy waxee ñoom ak ni muy defante ak ñoom da leen di encouragé jamono bu nekk ba kenn ku nekk pas-pas bi nga am ci sëriñ loolu sax da ngay yeesaat peq. waaw da ngay yeesaat peq. loolu dafay baax ci daj ji ab ëllëg ndax ndax ndax da cee baax. Ah, da cee baax ndax tërbiya taxoo. waaw da cee baax tërbiya dafa laaj taxoo. da cee baax waaw nit ki bu demee ba dë ne la dër wute nga tëgaat ko ci <laughs> waaye bàyyi dong ci àll ba rek na ci taax yi. waaw xamul ci ñoom dara moom da daan jaxasoo nit ñi di ah, xam fu ñu toll mm-hmm. di xam lu ñuy def mm-hmm. léegi nag loolu te lii mu lii sëñ Modou wax léegi ni mu doon liggéeyal sëñ Fallu nga xam bu noppee mm-hmm. day fab matériel beeg donga yeeg li mu doon liggéey lépp dem jëbal sëñ Fallu delluwaat su lu ca lu ca toppaat lu ko ca toppaat suñu fàlloo ko jox bu dee nit ñi la bu dee matériel lu mu ah. doonaat moo ko jox waaye moom jëlatu ko tax na la 7 juin 1963 bi bi jumaa ji noppee sañ mu sëñ mun njaay bintaa ngi toog sëñ bay ndaw a ngi toog sëñ sëñ mu dako sëñ bi ba mu ñëw toog mu ne ko sooroor yu ndaw yii féete féete féete féete soowu kat sooroor bu ci nekk bi ma koy liggéey juróom-ñaari million moo ko liggéey te jox nga ma ci biir liggéey booba bi ma koy ma ciy toll dama bëggoon soro yi nga xool bu la ci soob bu ñu doon séddale jumaa ji tey ji sañ nga koo séddoo muy sawal soo sëñ mu sëñ mu daal di koy daal di ko ne kon jël naa soror bii def montre fii fii fii fii mu ne ko mu ne ko accam xalaatu montre yeeg euh, rajo yi ñu ci defa xoy xoy jee tax nga di ko jël ak bëgg àddina sëñ mu ne ko déedéet mbàkke du loolu de mu ne ko lu mu doon mu ne ko féete gi mu féete ak yow moo tax ma tànn ko lu féete yow loolu daf maa gënal lu féete wut ak yow waaw moo tax papier ante du sëñ nga daan gis sëñ Modou di ci def soror boobu defu ko ci woon ne murit laa ci jumaa ji laa bokk rek wala taalibe laa wala sa doomi sa sëtu sëñ laa wala doomi def ku ma sa gis papier en tête suñu Fallu gis ci soroor bu ndaw boobu mu ànd ak montar yi te sañ nga mhm. te téewut loolu lépp bi sëñ bi sëñ Fallu demee da koo yeesalaat mel ni mi ngi door a tàmbalee liggéey ndax gisatul sëñ Fallu te sëñ Fallu bàyyee na ko njaboot gu sew ruuj goo xamante ne bii wares na leen a taxaw ndax te dem na te bi muy dem moom la fi bàyyi mu kenn ku nekk fa la sëñ Fallu waroon teg mu teg la fa la ma waroon def ci yow mu def mu defal la ko ñi war a toll ci leneen a toll ci samp a taxawu njaboot sëñ Fallu gépp taxawu këri sëriñ Fallu yépp itam ba war a doon kër gi mu war a doon te musu ci bëgg dara loo ma sarax mu xam ne lii alali sëñ falloo te njabootu sëñ falloo ko moom jël doomi sëñ fallu yëpp itam def leen ñi doomi sëriñam mhm. fab njabootu boppam gi làq fee di di jëfal njabootu sëñ fallu waaw sëñ murtala bu mu saa ñëw daana ko ba mu ñëw mu di ko yónni fab kenn ci njabootu njabootu boppam ne ko gungeel àndal la sa baay murtala mii dem doxi nangam su soo ngeen jógee bay dem mu ne eh, eh, diw woola yow may doomam nga wuyu mu la kaay nga ñëw mu ne déet yént bi doonoo ci dara kat yónni mën a de doonoo ci dara mm. da sa baay dong mm. da ah. nga sëñ Murtala demee rek nga gunge waaye doonoo ci yëf yi dara ah. ngir di leen wan na ba benn bis mu ne sëñ Murtala waa xam leen defal li ma leen defal bàyyi sama doom yi sëñ Murtala ne ko am ah, bakki déet loolu de xawma ko mu ne ko yéen lu ma am seen baaya tax ñoom nag lu ñu am mana kon bokku leen macha la doon def boo jébbalu ci moom sax mu woo mu wax la yéen doom sëñ Fallu ne la xam nga ko nga ne waaw mu ne demal demal boole naa la ak moom wala su ko fa fekkee mu ne ko jébbalu ci moom nga xëy def na ko ay yoon man mii def na ma ko ay yoon yoon yoon yu du jeex mi raaram taxawaay yooyu mu doon ko taxawee di dund dund goo xam ne di jàngal askanu Mbàkke bi mbokk yépp aw yoon mm-hmm. di leen wan doxin woo xamante ni ci saayir wala ci te joo ci mën a doon boo toogee ci kanam sëñ Modou Safal ne bii eh, bi mu nekkoon nga xam ne loolu mu ne bëtam dutu xonq lu mu wax rek sëñ Fall dana ko def mm-hmm. dafa am ku ku ku laaloo koo xam ne fam nekkoon di fa liggéey sori na mm-hmm. guddi taw dikk xeddi bitigam mu jóg ci guddi gi di dajale ay bagaasam neen ndox su fa ko laal ca lañu wax ñoom mhm. ñu indi ko kër sëriñam mhm. ndax sëriñam da daan def lu mel noonu andi waaye yoon na fi sax bi muy génn àddina ndomba goo xam ne comme dal suñ la ko yëkkee mu wàcc mhm. ñu yëkku ko ndomba gi mu yendoo ko ba ngoon jot yëf yi gën a metti gën a néew mun a dox mul dara ñu ne kii nit fekk leen fa ne leen kii nañ koy sañ Modou mbaa bu ñu ko defut dana loru ñu dal koy jël yóbbu ko xaayira bi ñu agsee xaayira moom mun ta dox dañ ko jàppoo seen ñaari loxo lañ jàppoo ñoom ngóor si toog ci borom waa ji toog ci ñu ñu lëngu ko ci kaw di ko indi nga xam bi ñu jubee suñu mën rek suñu day bis la jam lii mu doon lii mu doon lii mu doon ñu daal di àgg suuf gaaw teg ko ci suuf ñoom bàyyi ko fa dëkk ñoom ci sëñ bi bi ñu dikkee wax sëñ bi li mu doon suñ na ñëw mu daal di raam ñu jàppale ko ba mu ñëw ak si ganam sëñ bi sëñ ko tànk bu mu doon mu ne ko bii mu ne ko yëkkati ko mu yëkkati ko mu ne ko jógal taxaw mu jóg taxaw mu ne ko këddal tànk bi suuf mu ragal mu ne ko këddal mu këddal tànk bi suuf mu ko këddalal mu ko mu ne ko ba mu ñetti yoon mu ne ko doxal ba ca miir bee joxal ko miir soxna xujja bi doxoon diggante sëñ Mudu Safal mhm. miir miir bee nga dox dellu si mu dox ak tànkam ba ca miir bee mu dox dellu si waat ci kanam sëñ Moodu sukk jooy daal ko ne Mbàkke damaa bëggoon a jéblu ci yow sëñ bi ne ko déet yoon wi amul xàcc am na fas wëllëre waaye amul xàcc nekkal fa nga nekkoon te ñëw te te te bàyyi fi wëllëre wi rek waaw nga xay tànk ba keroog la tàggoo ak moom nga xam ne musta nangu itam kenn ku yaakaar sëñ bi fenn ak foo ko mën a yaakaare di bàyyi la nga nekkoon di ñëw di ànd ak moom geneen ànd ko bees déedéet day bëgg nga nekk foofu ba noppi te fas foofu la réew rek la nga bëgg mu di xam ne makaarimul axlaaxam mu ne su ko ndox sax di bi mm-hmm. ñu tey sëñ jiili mi ñu tey taxawu mm-hmm. sant na ko ba tàyyi mu ñëw Tuubaa Aliou góob si ko nga xam ne tool yi day ñor sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Modou woolu ko mu ñëw mu ne ko yow laa sant góob mi nga xam ne moom mooy wuti ay nitam mooy wuti euh, leneen leneen ak leneen lu waral yéwénal ab liggéey lu ne sëñ ji lee koy wutali góob tool yi jaag ko def ko li mu ko war a def ni ko sëñ bi bëggee mu defee ko ni mu doon mu doon koy ma fekkee kon taxawaay yooyu ak yitte jooju moo sa nekk te du fi jóg sëñ Fallou ni mu jeexale woon ci sëñ Fallou toog nañ fii corniche maa ngi moom sëñ Murtala mu ne sëñ Murtala mu ne ko Mbàkke mu ne ko moo xamoon ne sëñ Fallu ne dese woon na dara ma ma xamoon ne mo sëñ Fallu xamante ne bii sëñ Murtala mu sëñ Fallu mi dafa am ko wax sëñ Modou ci sëriñ Touba ne ko du ma ko def giñ waaw giñ ne ko du ma ko def sëñ Murtala daal di dem ba mu am ay fan mu dellu siwaat ci moom daal di waxtaan ak moom ne ko mën de sëñ bi damaa gis dama fi ñëwoon bis sàngam wax la nangam ma gis la nga giñ ci sëriñ Touba te da maa waxoon ne ma saa ma ne lee sëñ bi rek sëñ Fallu lay wax ma gis keroog nga jéggi ko dem ci sëñ Touba xanaa kon yooyu sëñ Fallu mu daal fab loxo ba dóor ci dënn bi moom sëñ mu daal ko waaw maa ngi nii maa ngi sëñ Fallu may sëñ fallu kay ma ma may moom may sëñ fallu laa ah, ilaaha illallaah may sëñ fallu nga xam ne kon taxawaay bu mat sëkk la sëriñ Modou Safal lu taxaw a doon wane lu taxawaay bu nekk mës a doon jëwriñu dong yëpp karam sëñ Fallilu di ko liggéeyal ba am ay ngërëmam képp ko am ngërëmam nag du doon yàqatu àddina ak àlaxira sëñ Modou ko mu àddina mosu koo yëkkati ba tax mu dem bitim réew bitim réew wër na fu ne dem na fu ne waaye loola mënu waxoon ca Touba Aliya loola ko yóbbu fu ne ñun dañ fee ñëw di liggéey si addiya ak lu ñu yore suñu njaboot waaye mënuñoo am dara ndax tubaab yi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy kii tubaab yi dañuy dañuy mhm. ne mu daal ne waxul na indi leen suuf waxul na indi leen ndox dana indi leen oto ñu indi oto ci buntu hôtel bi sëñ Modou wàcc dugg ci biir oto bi dana leen bedd mu ngeen jàpp ne moo gën a tàng ci Espagne na fa oto bi jaar moo leen may jàmm ba tey jii macha allah macha allah macha allah Eh, xam naa li sëñ Modou Kañ waxoon dëgg la ku la bàyyi woon jotaay bi dana neex màgg ci lool mm-hmm. eh, waaye liñ des ci waxtu moo bëriwul kon sëñ Modou yan ngay kàddu ngay tegaat ci lii sëñ eh, Modou sëñ Fallou Bousso wax ci lu toll ci ñetti minutes. jërëjëf sëñ Fallou Bousso jërëjëf sëñ Fallou Bousso sëñ Fallou Ngal Sylla am na solo. waxtaanam bi jërëjëf sëñ Fallou Sylla mi yor caméra yi. waaw sëñ Fallou Sylla it moom mi ngi koy mi ngi koy ñu ngi koy ñu ngi rafetlu liggéeyam baax ci yu bëree bëri. Mm-hmm. ci euh, liggéeyu sëñ bi. macha allah sëñ euh, Fallou dafa wax yu bëri yu am solo yoo xam ne dama ci tànn yenn rek mm-hmm. mooy mi ngi wax ci pas-pas beeg ak euh, li nga wax léegi ci ni muy defee stratégie pour faj dara léeg-léeg sax mu dugal ci loo xam ne day mel ni ak xormal nga xamee foog nga reetaan mm-hmm. loolu dafa bëri li nga wax ci njariñ li dafa am benn bis. koo xam ne moo ko fekkee moom moo ma ko nettali bëgg ma jaar si yi nee bitim réew la dañoo dañoo toog am mbokk moo xam ne dañoo dañ ne ko si mbir kii moom suñu mbokk la moo xam ne féetlu si beneen wàll gi mbokk yi ñu dëkk ci soow bi waaye yàlla la ko xaw na yàgg rek waaye daal moom ndax xam naa daal moom bëgg na bëgg na loolu al kii lu ñu def kenn ko si man waaye daal xam dëkk bi daal xaw naa kii ci moom ñu bëgg nga ñaanal ko mu ne waaw danaa ko ñaanal waaye nag kaay leen na kenn ko ne jox ma fii 10 dollars léegi nañ ko dajale dajale léegi nee na keroog lañ ko fa dajaleel bu ñu ko doon wàññi xam kenn xamul nangam million la. Mm-hmm. nangam million yoo ko dajale mu ne nañ ko ko yox gannaaw loolu demee nañ ko nañ ko daan li li moo ñaan nee na keroog. li mooy moom sama mbokk mi nga xam ne moom la nettali lii moom moo nekkoon moo fa nekkoon représentant sëñ Fallu foofa. Mm-hmm. di sama nijaay nee na. li yéeme mooy loola ba mu siiwee ña ña fekk wutoon jotaay ba dañ leen nañ yónnee ñoom it seen addiya maanaam dañoo yónnee waa ji moom capitalisme lay doon daan léegi xam nga loolu mooy stra maanaam moom daan daan def loo xam ne léegi bu ma ñëwee ngeen jariñu waaw waaw xam nga yooyu yu am solo la yoo xam ne maanaam am njàngale la sax soo ko soo ko xoolee mm-hmm. ndax xam nga dafa dafa am ñoo xam ne da maanaam daa mat a ñaan waaye dafa am ñoo xam ne jëf moo si moo moo léeg-léeg nga dem si sëriñ naan ko dama maa am masala nga ne ko dama am ngent te dara nekk fa mu ñaan la tëfli la ak mu jox la am xar loolu du ko réglé xam nga <laughs> alaaj baara am nañu ñëwoon di ko wut ay ay ay ay ay ay bourse da leen ne kenn du ko ñaan ci loxo das koy lijjanti woo ministre bi jeex na waaw yooyu da ko daan def yoo xam ne da ko daan def yu bëri yoo xam ne am njàngale la am na mm-hmm. bés boo xam ne tamit ci bitim réew gars yi di ko jàmbat xam nga bu ñëwee lu ne la ñu ko jàmbat mm-hmm. am ko def sëñ bi sama digg sama digg naa ko day métti mu ne ko yi la saag yi saag yi ngeen kenn du ko yenu bis bu yàlla sàkk te sa ndigg du métti da ngay noppalu ngay noppalu waay <laughs> yoo xam ne sëñ bi am solo yoo xam ne non ku doy daa daa mat a daa a daa mat a jàngat ndax <laughs> euh, lu am solo la gis nga li mu wax ci li mu wax ci euh, li ko suñu borom mayoon dafa am euh, loo xam ne boo ma ko mayee danaa ko dinaa ko nettali mm-hmm. ndax am njàngale da see am dafa am mbokk moo xam ne dafa am lu ñu doon tere ci ci réew mi ñu mu moom mu dugal ko fi. Mm. pour bañ a def publicité. ñu mu am mu am yoon ak mu am leen teg yoon. ay ñaari doom nag am lool ak kóllëre ak ñu koo xam ne ci njaboot gi bokk. Mm-hmm. bi ñëwee wax ko euh, kooku xam ne ñoom ñaari goro yooyu ñoo ñooy ànd mu ñëw andi leen andi leen la woon. Mm. ñuy wax wax leen ko wax leen mu demee mu ne anamu ñu ne ko moom day mag mag ñu téye de foofu ca foofu ñu téye nit ñu Ndakaaru mm-hmm. mu ne mu ne dañ ko gis sax mu ñu ne waaw da moom koy ñu ngi ko gis mu daal mu daal di mu daal di mu daal di joxoñ ki nekk euh, bëkk bi mm-hmm. xam naa tërëm ak yëpp de mm-hmm. ah. daa daan daan ko jël foofu nga nga dem jënd fa ab seulement indi seulement soo ay indi seulement daal di indi seulement bi suñu bee ko daj ni daal koy daal di téye seulement bi ci ñaar loxo am lu am lu ñaan ñaan ñaan tufli ci ne ko bu ngeen demee na na ko sol du fa tilime. suñu borom dogal mu dem gone yi dem kenn sax andi nañu fa adde ju am solo. Mm. waaye da koo xaaj am euh, ki nga xam ne moom mbokk la ci ñoo xarit yi la ko jox kenn ki mu leneen li mu téye ko xam naa ki mu ko jox bi mu reersee. Mm-hmm. <laughs> macha allah mm-hmm. keroog yàlla dogal ay fan yu néew rek góor gi génn. Mm-hmm. kooku noonu génn. bi mu ñëwee am njàng laay laay lu am yi lu am solo bi mu ñëwee ñëw corniche. fekk fa sëñ bi fekk sëñ baa ngi dindi sëñ boobu nga xam ne moom la gone mi xam daan ne ko sëñ bi da ngi dindi waaye xaar daal koy jot sëñ bi ne ko ma na ma xaar foofu rek ma ma bu ñu jëlee sama noppi dinaa ñëw corniche bi yàlla dogalee sëñ boobu ñëw sëñ daal di ñëw moo koy siyaare xamu ko de xamul sëñ xamul sëñ bi sëñ bi xamu ko daal koy ne ko man de sama njaboot gi ñoom ñoom ñoom ñoom waxoon li xew ma nga ñaanal ma yàlla ko lépp sotti na. Mm-hmm. ay yëkkati juróom million. Mm-hmm. jox ko ne ko maa bëgg lii moom mm-hmm. waaw ñun li Sëriñ bi wax laay laay dañ fay nekk rek ngir Sëriñ rek. sa waa kër yi dañoo dañoo wëlal kenn si njaboot gi. te it lépp Sëriñ Tuubaa la. juróom million yi kuy sëriñ mu ne ko diw sëriñ diw mu ne ko naka fanaanoo wallahi alazim te tey na ko fanaanoo na na suñu tubaab rek taxoon ñu koy def ak kii nga xam ne suñu njaboot gi la bokk te moom benn la rek ndax sama njaboot la moom na nga ko fanaanoo oh, macha allah sëñ bi ko na na ko fanaanoo xam nga li suñu wax xëy daa bëggoon jublu sax jox ko juróom bi ne ma ne ko déedéet na na ko fanaanoo de di ko tooñ ndax naan ko waaye nag xam nga sëñ Modou ko xoromaloon mm-hmm. waaye nag yow mii man xaw ma la fi nii waaye nag jote mooy jiitu joote ndax fi ni ni ma dégg ñu ne moom nga mel lépp te man xaw ma la loolu tamit xam naa ne doy na waar waaw la euh, eh. xaw loolu na nga xam ne moo nekkoon xaritu gane moom it macha allah li ñu ciy dégg bëri na sëñ bi dëgg la dëgg la jërëjëf jërëjëf Euh, nit koo xam ne jox na la addi ju noonu nga ne ko dama jox ko sa sëriñ. la jàngale la. loolu moom man loolu moom bariwut ñu ko mooy wane ne sëñ Tuubaa la teewaloon. Mhm. muy koo xam ne sëñ bi euh, ci tënk rek muy kër yi nekkoon Sénégal muy kër diine yi nga xam ne ñoo nekkoon ci euh, réew mépp ak Euh, biir kër Sëriñ Tuubaa ñëpp ñëpp lu amaloon jàmm amaloon ñoom ak couleur ak relation boo xam ne ku si ñëw man am na kilifa yu mag yoo xam ne man euh, daanaka amuluñu fi nekk ci ci corniche xam naa kër yëpp noonu la ndeysaan ndeysaan dëgg la am nañ ko am sax naan nekk seen diw wallaahi dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la te te loolu xam nga koo xam ne ay ñu bëri tudd nañ ko ay gone. Mhm. moom tudd nañu ñu bëri gone suñu mën xam yi yàlla na fi yàgg te mhm. xam nga am na euh, moom ak. Euh, dëgg la dëgg xam naa la cee xew. am solo la. Mhm. loo xam ne loolu li ngay wax léegi lu mot a rey loo xam ne. jamono jii la euh, tollu joo xam ne ñu mel nii di si Moussa Fall ak ñu mel ni moom dañ leen war a waxtaane ba ñu mel ni man ak ñu ñëpp di si roy ci dëkk bi ak ci réew mi ndax ñoom ay roykaar yoo xam ne ku ko ku si roy rek dina am njëriñ si réew mi macha allah sëñ Modou Kandji macha allah sëriñ Fallou Bousso jërëjëf sëriñ fàllu si la mi ne ci wàllu machine bi seen mbokk taalibe Fallou Gala si la nekk ci wàllu micro bi ñu doon fàttaliku dund ak jaar-jaari sëriñ Modou Moustapha Falilou moom Cheikh Mahamadul Fadal Mbacké yaakaar naa ne mbokk yi jànge nañ ci moom lu bari bàyyi nañ ci moom itam lu baree baree bari waaye doone sëkk ci am njàngale def ngir yàlla mm-hmm. mooy fu ma dem ñu jariñu ku ñëw fi man jariñu mm-hmm. loolu yaakaar naa ne sëñ Mourou Moussa Fallu waxu ko yam ci mm-hmm. waaye da koo jëf mu bàyyi fi nag doom ju mat doom di sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke tarbiyewu baayam mhm. liggéeyal baayam it ay liggéey yoo xam ne àdduna teg na ci bët mhm. ba baayam bàyyee ko yan bi mu doon nit ku woyofal boppam mhm. te suñ borom diisal ko doon nit nit ku ubbeeku te bari yitte amul wenn xew wuy xaw ci yoonu mu murid dafa doo fa daje ak sëriñ Jili Abdou Khadir Mbacke ñu ñaan suñu borom mu may ko fan gudd lool waa ànd ak wér-gu-yaram waaye defal ko ay rakam tàmbalee ci sëñ Mourtada mm. sëriñ Ahmadou ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare di ñaanal nag njabootu Cheikh Mahamadou Moustapha Fall gi fi gi jiitu mm. yàlla na suñu yokk seen leer di ñaanal seen wayjur yi ku mel ne sëriñ Khalil mm. moom Cheikh Mahamadou Fadal sëriñ Mamor moom Cheikh Mahamadou Fadal ak ñi ñu bokkal yàlla na yàlla dooli seen ngërëm ci ak barsaqul Mahamadiya tawana leen Cheikh Mahamadou Fadal Mbacké seen bokk taalibé Fallou Gala Sylla woon seen télévision Lamp Fall TV wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu آمين بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الإله من الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك